jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV ñu ngi amaan mbégte ak contentement di jàkkaarloowaat ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di yàlla yërëm leen xaaree ne aljana ñu tawat yàlla yàlla seen bopp nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw yàlla na leen fa yàlla génnee bañ dellusiwaat suñu biir ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen ko defal nag comme ni leen ko daan defalee ak seen chaîne bi di Baol TV ne leen fépp champion nekk dinañ fa dugg génnee ko waxtaan ak moom waaye tey yaakaar naa ñu ngi ci dëkk bi nga xamante ni mooy géejawaay ci commune bi ñu naan Médina Gounass jël si ci xale yi kenn koo xam ne macha allah dafa marqué empreinte ci làmb ndax yaakaar naa xale bi def na 15 combats waaye mi ngi dajeeg xale bi ñu naan xeelu ngor njool ngor ka moo taxawal loolu moom production moo du Baye Fall làmb ji war a am le 15 fële ca arène nationale. yaakaar naa olof nee na ku fóotal mbët roccil bar jëli woon xale bi ñu naan xeeri ngor waxtaan ak moom waaye tey ñu ngi fii war a jël ki nga xamante ne mooy adversaire am di Mbaye Tine Junior fas yéene waxtaan ak moom bu ko defee ñu bàyyi ko mu nuyoo nuyu mbokk internet yu Baol TV nuyu amateurs yi ñu dugg ak moom ci waxtaan bi mbay nuyu nañ la siyaar la. ñaar maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli seen maa ngi sant samay ñaari waajur di sant samay ñaari waajur bu baax a baax baax di sant waa Gunaas bi may yeewoo ñetti mbaar Baxdaat guy ga di sant waa ñaag Colobane Petersen di sant waa àdduna waaw di sant waa Guédiawaye ñëpp su ma limee may juum di sant sama booy yi nga xam ñoom ñoo toog fii ndax booy yi su may bëri gaan dañuy daj lu ne ba Serigne Touba mënu ma leen fay maa leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax maax ndax man ak ñoom yàgg nañ ko waa ñoo foondoo ñoo noo fii lépp xam nga maa leen sant di gërëm bu baax a baax bëggee sunu waa écurie ah sunu waa écurie gars yi sox nañ si combat bi trop dëgg yàlla gars yi ñu ngi si jàpp may ñu ma jàmm maa ngi ñaanal bépp mbër fu am combat yàlla na may ndam mbër mu amul combat yàlla na yàlla may combat defal la ci ndam incha allah. jaa ngeen jëf mbokk yi gis ngeen noonu champion bi nuyoo na bu ko defee ñu dugg moom ci waxtaan bi Mbaye Tine bu ñu doon laajte tey kan mooy Mbaye Tine Junior Mbaye Tine lan la ñuy wax. waaw Mbaye Tine benn xale la rek dëgg fii Gunaas waaw nekk ci làmbu commencé bëre 2013 def 16 16 combats waaw ah, 16 combats laa def. bi mooy sa seizième wala mooy dix-septième bi mooy sama dix-septième combat dix-septième combat mhm. waaw dégg ngeen noonu nga war a dajee nag xale bi ñu naan xeeru ngor seen diggante yéen ñaar Mbaye Tine la moo ko dugal ci xeeru a ah, waaw làmb la rek man su ba demee bay teegi xeeru ngor ma bàyyi làmb su ma demee ba naan wala ma toog di xalaat ay ay xeeru ngor mun naa dem tekki sama ngéem kon ne sama liggéey bar Serigne Bamba hmm. waaw. mais boo demee bay tekki xor xeeru ngor mais xeeru ngor nekk xale boo xam ni ñëpp koy bàyyi xel ci làmb ji xeeru ci xeex bi xeeru ngor ci bëre bi Mbaye Tine teggi ñëpp dugg ci moom manqué adversaire la wala bëgg a bëre. non du bëgg a bëri làmb ñu boole rek xam nga tey jii làmb sama métier ma jógee si combat ñu woo ma fay ma xaalis. Oh. fay ma xaalis ne ma sa combat xeeru ngor xam nga xam la moo tax na samay mbokk samay staff ñu ne ma jëlal ma jël loolu kese la mais làmb la que le te bu jour baa nag dama koy daan incha allah. Hmm. ah bon loolu. que le nga wax de. incha allahu rabi la 15. drapeau bi day ñëw fii Gunaas. kon yaay kon yaay man mosuma toog sax xam naan ay xeeru ngor nii du ma ko toog sax di ko xalaat. du tëdd ba xaaj guddi jok sa xel dem ci xeeru ngor nga jóg xalaat ko bi. loolu tàppar moo koy ragal man ni ma bëreel ne laa la xeeru ngor moo ci gën a néew bëre. moo gën a néew doole. moo tax man xeeru ngor yemuma fii. Ah. te bu jour ba lay comprendre. yaakaar naa yàq xeeru ngor boo yëmbal moo leen boole. non waaw boo yëmbal boole ñu moom boo yëmbal la koo jàpp daan ko si avec la manière. mu hmm. naan ay ay ay daay bind recours bind waay bind recours amateurs yi ñëpp xam nañu boo yëmbal moo daan xeeru ngor dëgg neexul quoi képp ku si aan làmb ji xam nga di nga xam ne boo yëmbal moo daan xeeru ngor. xeeru ngor mënu bëre mënu xeex te bu jour ba dina xam ne mënu bëre mënu xeex mënu bëre mënul xeex maa la wax loolu moom seetaan nga digganteem ak Koña waaw digganteel ma mhm. xam des fois booy day ñëw di sóoraale te baytin amul benn mbër bu muy sóoraale ci làmb billaahi wallaahi wa te bu jour ba xam ne man man du ma man sama maanaam man tiitukaay newul si man. tiitukaay newul ci yow. déedéet mais dama gis mbaytin dafa am confiance bu ne ci moom mbaytin mbaytin lan lañ ko dee dafa mel ni dafa ñeme xeeru ngor. ne déewu ñu ma dara rek mbër booy bëreeg moom boo ko ñemewul doo ko daan làmb. doo ko daan ci làmb. man su ma demee bay bëreeg xam nga xeeru ngor xam nga di xer ñaarti moom balaa caa ma ma daw avance bi xam la xam la maa mën xool leneen xeeru ngor bu la 15 naar faal ma fii laa ko bindal téere. Hmm. bu la 15 di nga yuuxu. Ah. incha allahu rabbi. dinaa yuuxu ne mbaytin daan. waaw. bu ah. soobee yàlla incha allah. mais mais mais xeeru ngor xeex bi gars yi di wax ci moom. est-ce que Mbaye Tine buñ tëjee yi arbitre génn seen diggante ñeme nga koor ak moom di xeex ak moom. barki dem wax na ko ci masque mbargaan nee naa ko bu amee sama diggante ma ak yow benn pas bis boo bëggee ñu xeex ñu xeex boo bëggee ñu bëre ñu bëre sans départ ci moom rek xeeru nga mënu xeex kooku pire dinaat lay teg sax moo ko gars yi dóor mbër mu daal mosul kaaw mbër waaye ñu ne kooku mun na xeex. dafa mel na nga jàng xeer de bala nga du ci moom. non foo na jàngu xam nga xam nga affaire yi mbër moom boo amee combat. Mhm. foo jaar di nga seeraan ay ay combat am di ko jàng xam nga moo loolu. mais dama gis keroog seen jàkkaarloo bi arène nationale mu ñëw jox la loxo di la remercier ci li nga jël avance am mel ni mel ni mel ni dafa laa nawloo wala dafa dafa yaakaar ni daal mooy loolu. no xeeru ngor boo gisee gars yi jëluñu ko du ma la ndëb mu ko wax man xeeru ngor bëgguma jël sax ndax amul coow ci làmb. barke Serigne Bamba loolu moo tax gars yi jëluñu ko amul coow xew nga amul coow nga làmb léegi coow la. man man man ni may gisee nii. Matar Ndiaye moo sama manager. c'est que Matar Ndiaye moo si topp di ma sona rek moo tax ma jël ko. moo tax nga jël billaay walaay. mais sa bët jéggi woon na mais mais man bëgguma sa bëre xeeru ngor sama combat ma përi moo ko teg ba ma ba ma jógee si boo yëmbal tag la ma përi woon dama xewal nga mën ko booy moo waat war na Serigne Bamba. nga ne ko bu ma woowaat. billaahi. ndax lan loolu. non xam nga rek ama nga tey jii làmb daal daan mbër moom coow nga tournoi di jël mbër moo xamante ni mooy loolu tàngul. yow daal yow daal su ma la déggee da nga bëgg na xeeru ngor tojut fenn. non yow xeeru ngor coowul coowul xeeru ngor tojut fenn amul coow. Hmm? làmb léegi coow la. làmb léegi coow la quoi man instant bi ñaax pexe moo tax ma jël ko rek te bu jour ba dina xam ne làmb boole coow moo ñu boole billaahi wallaahi wa taala. làmb boole wu leen coow du Ah. Karu Ngor du dara. gaa yi ñooy nekk du gaa wax. mais man ñi ma xam dëgg. xam na ne maa xeeru nga ba mu ne prix ma jëlee ko fi. nga jëlee ko fi waaw. yaakaar naa ni combat bi fële la waroon amee ci Ibamar. ñu indiko ko arène nationale yaakaar naa loolu avantage Mbaye Tine lay doon. waa loolu moom samat avantage la. Hmm. jour combat ba le 15 dañuy añ. teg barada naan lawal deuxième. ram ndànk dem stade. Ah. incha allahu rabbi mais dana woon say supporter bu ñu yéexee du ñu am fu ñu toog loolu la waxoon. xeeru ngor daa am supporter. xeeru ngor xanaa demoo combat moog Poul daar bii passé li mu fay indi loolu laa mën ñaari kaar. Ah. arène nationale ñun ñoo ko moom ñun waa Guédiawaye. stade bi stade bi suñu stade la bu ñu neexee dañuy dox léegi yàgg. Ah. billaay walaay. mais mais waa Ikri Waalo moom moo leen tëggaloon la 15 passé doon dox ci diggante ma Mandiaye ak nga xamante ne mooy Kaw Gourdin ngeen war ko ibbaat yéen la 15. nan ngeen koy waajee yéen waa Ikri Waalo combat boobu. non combat boobu xam nga nekk waa Ikri Waalo kasa de. waay man maa koy ubbi le 15 incha allahu rabbi. yaa ko war ubbi. waaw ci mbëri yu bëri grand komba mhm. le 15 man maa koy ubbi. ah incha rabbi moo tax laa mujj nii sama bakkan laa ci gar. mais est-ce que xam ngeen géejewaay gars yi dañ leen di bàyyi xel ndax liñ def saison daaw bi. laa lay wax ni non waa Guèye dañuy liggéey mhm. ñun dañuy entraîner pur et dur ñun bu ñu amul combat dañuy bu ñu amee combat dañuy entraîner. waa Guédiawaye moom xam nga loolu wax mbiru entraînement te duñu ay ragal dañoo mun a bëre xam nga te duñ caaxaanee làmb hmm? waaw mbëru Guédiawaye yëpp waaw ñun suñu grand yi la ñuy roy. mais Mbaye dafa mel da ngay napp xeeru ngor. non napp moo ko de napp moo ko de. napp xeeru ngor maanaam moom lu mu yaakaar amul te bu jour ba dina xam lu mu yaakaar amul. bu dee doole maa doole fuuf ñaari yoon maa ko doole maa doole fuuf te buñ jàpp dina xam maa ko doole. moom làmb ji xoolal ci xeex la ko yaakaar ci xeex. xeex moom xeeru nga daa baax mais mais mais nee na bu nga dimbal ko rek ngir yàlla bu arbitre sifflé bul arrière. man dur naa la kuy arrière. ah man de moo ma ko wax nee na nee na maa koy ñaan. bu mu sifflé naa bëri naa seize combats seize combats bu arbitre ne prix man damay dox kaw. Ah. même soo may rey du ma la reculer deux te bu jour ba dina xam ni li ko wax dëgg la. xeeru ngar xeeru ngar fi la ko papa yaa di téye ko ba mu jébalu ñu ne déedéet waa booy jëb jàpp ko dóor ko ba mu jébalu xeeru ngar tàppe la du gis ko. du gis ko xeeru ngor buñ ko tojoon ci néeg moo euh, mbaytin ñu tëj leen si néeg mbokkam andi ko euh, mbaytin ay mbokkam andi ko uh-huh. buñ tijjee néeg bi yaa ngi dégg ay mbokk xeeru ngor medd la ñuy jël si medd la ñuy jël si medd la ñuy jël si nga teg mi mais da ngeen a naw seen bër ba mu ëpp xeeru ngor min waagum fuuf ñu loolu ñoo ko mën fuuf ba ba mil ah wóor na alxuraani karim ñun duñu wax dañuy jëf xam nga tax du ñuy jëf uh-huh. dañoo wóolu suñu entraînement dañoo wóolu suñu mbër uh-huh. waaw xam nañ li ñu indi xam nañ kii mooy kan. mais supporter nan lañ koy waajee. pour arène nationale. nuñ koy waajee déggoo ma de du ñu gis si violence du ñu gis fenn mais l' essentiel bi mooy liñ liñ sas suñ mbër. moom moom lañ bëgg mu dem jëli ji ñu ko muy victoire bi indi ñu ko te instant yii nii sax dafa mel ne victoire bi ñëw na. Ah. ñëw na agsi na bu yàgg. mais mais seen digganteeg Mbaye Tine. suñ digganteeg Mbaye Tine démb la woon tey soog a ñëw. Hmm. démb la woon tey soog a ñëw dañoo gis su moom loo xam ne daf ñoo doy. daf dañoo gis moom loo xam ne daf ñoo doy keneen koo ñu wax ku dul Mbaye Tine rek waxoo ñu keneen. mais mais buy bëre doo tiit. tiit. Hmm. su may bëree bu arbitre prip yaa ngi dégg ci laay summi sam buubu commencé yëngal drapeau bi te xam ne am naa victoire. wóor na Cheikh Modou Kara Ndoye. mais confiance boobu moom moo ko def ci yéen wala lan. noonu la demee nag noonu la demee confiance boobu noonu. Hmm. moom moo ko def si ñun ak entraînement am tamit quoi. Hmm. yaa ngi dégg entraînement am bu ñuy gis muy entraînement xam waxuma laa xeeru ngor bi ñun numéro un bi lañ soxla pour ñun sax numéro un bi la. naka de ay numéro dool la ñuy andil. lan nga koy yóbbante. lu ma kan laa yóbbante. xeeru ngor xeeru ngor. Ah. na ko day tari sóorutul muñ lekk. Ah. na tari sóorutul muñ lekk te xam ne <laughs> moo loolu noonu. wër na Cheikh Modou Kara. waaw waaw Gunaas daa mel dañoo pare combat bi. du combat bi lañ pare ñun keneen ku dul xeeru ngor sax pare nañ fépp je suis pare tout. Ah. waaw. kon xeer am na problème. de déggoo lu mu la wax kii kay man damaa dama ko yërëm sax xaw ma ban hôpital lañ koy yóbbu xaw ma CTO lañ koy yóbbu xaw ma koy dama koy yërëm sax. dégg Mbaye sa gars yi am nañ confiance de. waaw booy moo loolu booy dañ maa xam nag dañ maa topp di mbapat mbapat lañ ma commencé topp ba yaa gën a ça fait longtemps. bilaay walaay moo amoon mais séance de entraînement yi fi mu ne nii nan lay demee. yaakaar naa seen seen muy taxaw saison bi dafa tëjoon. gars nekk ci vacances. mais nan doon paree combat bi. waaw ñu ngi ko doon waajal de buñ xëyee dem saal ngoon ñu dem jin ba combat bi jege see ñu commencé yéeg duñ contact yéeg duñ contact instant noonu lañ ko jàppee quoi. <laughs> mais dégg naa combat li nga ciy entraîné moom mosoo ko entraîné ci combat. lan la combat benn toll wala la. ah le géant du Cap Vert. Ah, ah. damaa jël combat bi coow lu bëri kay moo tax ma rey sama ah. di ànd ak sama gars yi ñoom ñaabu ndaw ñoom Madji Madji Sa Jaxaay Maguette Seck. di liggéey lu métti. bari Serigne Ba ma gars yi may ñu ma dara. may ñu la dara may ñu ma dara bilaay walaay. mais mais mais nan nga gisee saison bi ibbi na keroog le nan nga gisee journée boobu journée bi nga xamante ni Fallou Ndiaye moo ko tëggoon ñu koy nuyu au passage ñu gis ni mu demee nan nga ko gisee ouverture bi. non saison boobu moom journée boobu moom macha allah gis naa seeraan naa làmb ji booy indi nañ mbooloo Ibou Afia ak jeex jaam dëgg yàlla moom xam nga rempli leen seen contrat quoi. man loolu rek laa wax xeeru ngor quoi Modou Baye Fall gor la. Modou Baye Fall bu nga gën a gore. yaa may dégg jour ba na jéem a mobiliser moo gën. Lamine bu rëy amul njëriñ de promoteur yi kenn mënu leen nax. yaa may dégg xeeru ngor nga xam xeeru ngor daa bëri wax rek naan ay mbooloo ay damay jënd ay cinq bolog ñun ñoo ko dàq jënd ay bologu biyee fuuf barke Serigne Bamba yaakaar yaa mbooloo fuuf fuuf xanaa gisoo fi ma dëkk yow yow yow fi ma dëkk ngay tëkkaleeg ay ngor Bagdad ñetti mbaar guy ge marché bees marché njaareem kaw lycée waa ñàgg ñu ngi waajal yëpp mobilisation bu mag. waa ñàgg maay borom gunaas mais secret waa géejawaay lan la dama gis waa géejawaay xale yi géejawaay bu ñuy bëri ni stade bi di mel. waaw mais dara mais xam nga tey jii boo nekkee mbër dëgg su gox. Mhm. da ngay yemale ñëpp wàcce sa bopp loolu mooy àdduna taman booy taman koñ bi ñëpp laa yemale aw ma seeg benn booy mooy loolu. billaay booy laa sekk ak ñi doon samay waay doon sama xarit barke alxuraan ñu foofandoo fi defandoo lépp loolu kasa la man fii laa juddoo yoroo fi màggee fi. bari sëriñ Ba ma géejawaay fii laa defee lépp fii laa amee lépp tamit waaw man amul lu géejawaay waaw. mais nan nga nan nga gisee CNG bi ak ni muy doxee yaakaar naa ne seen bopp ba mu ubbee génnee nañ ay règlement yu bees wàññi temps bi ñuy bëre. Mm-hmm. wàññi biteel yi ñuy sotteeku ci biir géew bi wàññi lu bari nan nga gisee CNG bi ak ni muy doxee. man fenn rek laa daaxoorul quoi. ñeneen léegi mbëri ndaw yi 5-5 la. 5-5 mais loolu yoon. 5-5 yow bala nga léetoo bay jàppante rek. 5 minutes mat 5 minutes mat. grand combat ñu ne 10-10 la. ah xanaa kon mbëri mag yi moom mbëri mag yi est-ce que nekk 10 loolu yoon loolu loolu du yoon. 10-10 dafa tuuti ci yow. waaw 10-10 non du man de. Mhm. man garaawul quoi man mun naa bëre sax 5 minutes. mais maanaam grand combat yi lay sóoraale mbëri mag yi. mbëri mag yi seen léeto day jël temps. Mhm. avant avant ñoo jàppante rek cinq minutes foofu day man baa ay set minutes huit minutes. yaa may dégg làmb dafa nekk loo xamante ne nii làmb léegi xam nga calcul la. ndax mënoo ñëw di préparer sa combat waajal ko ay weer weer ñëw di ko saax saaxe mhm. déedéet man sama làmb damay calcul ba mu leer nañ liir ko ndax du ma mën a saax sama làmb. Mhm. na xama na xama doomu góor laa te tamit xama daa am ñu sama ginnaaw di sonn si man xama mooy loolu ko quoi di reyante ngir man kon du may ñëw stade di saax-saax sama combat waaw yaakaar naa ni CNG bi dégg nañ Mbaye Tine Junior li mu wax te yaakaar naa du moom kesee ko wax ñi ko wax bëri na temps bi tuuti na ndax keroog ku dem fële ca Ibamar tuuti ngay rapport ñun rapporter yi sax dafa tuuti ci ñun wax ma ak ñuy bëre tuuti ngay wax ñu ne temps bi jeex na dem mi temps ñëwaat nee nañ tamit mbër mu daan ñi nga àndal bu ñu duggee ci biir géew bi même bu nekkee dix personnes xam nga xam nga ku nekk quinze mille la. quinze mille la ñu wax. de am na am na benn booy bu doon bëre école Balla Gaye dimanche yu passé. Mhm. ma booy bu dégg desewul dara. day wax ni parce que Serigne Bamba. dagg nit ku dugg rek quinze mille lay fay. quinze mille la comme ça su ma daanee sama cumu gars loolu moom moo mënta ñàkk. Mhm. ndax gaa ngay àndal dañuy kontaan ba xam xam ba xam xam duñ mun a téye seen bopp. loolu mënta ñàkk xam la waa CNG nañ dawal yërmande mbër yi. Mhm. làmb dafa métti mënoo di préparer sa combat chaque jour sonn si def xam la nga bëre ba pare dërëm duñ la ko jox loolu tam dafa ñaaw quoi. dafa métti waaw loolu dafa métti trop dëgg yàlla xam nañ ci yërëm mbër yi quoi. Mhm. waaw dafa métti. rawatina yéen xale yi nga xam ne yéen a ngi doog door yaakaar naa seen combat sax moo dàq léegi combat mag ñi ak ni ngeen ci daj yaakaar naa ni mag yi dajatuñ ko ci ngeen jël seen alal financé ko ci ngeen bëre ba pare ñu dagg leen loolu dafa metti mbay non dafa metti billaay dafa metti te làmb dafa metti làmb làmb dafa metti làmb mooy si entraînement te léegi entraînement yi sax garaawul mais sëriñ yi la yërëm sëriñ yi xamuñu mbër mu ndaw xamuñu mbër mu mag da ngay dem ñu ne la xam facturé lu seer ne ma soo ma fay lu du ma la liggéeyal bu dee yow borom jong bëgg nga ndam far force gaa nag leen di fay dañ leen di fay. barke Serigne Bam lamb dafa metti ñu gis tam CNG bi dañoo ne quatre lañ may nit léegi ci biir géew bi boo demee ci fukki sëriñ ku ci nekk jox la butéel loolu fukki butéel la ñu ne la sama butéel ngay mujjee nga war koo dugal CNG bi tere loolu loolu est-ce que du metti ci mbëri tam. ah quatre butéel lañ wax. quatre butéel xaw ma cinq wàññi nañ ko daal. ah cinq butéel cinq butéel baa loolu yéeme na de. ah loolu lan wax de. ah loolu la lan wax de. mbay dinde buy dugg si biir géew ñaari peñe lay lay duggaaleel. waaw ah. kon yaakaar doon ko dagg. ah yéema na de. looy wax nii. ma ne ko ma ne ko loolu dina yéema rek gaan waa CNG nag gaan nañ dawal yërmaande mbëri nañ dawal mbëri yërmaande gaan ndax ñu dañuy jël suñu xaalis dem si àll bi gaan daj lu ne financé. dem fu sore sore sore ñëw. ñu ñuy wax même même même alkaati yi gis naa léegi ni ñuy def ci làmb da ngay gis mbër daan ay mbokkam daw di zibil police yi téye di la dóor. alkaati yi xamuñu làmb da ngay taxaw si ci mukaay mbër sax ñaa naan taxawal nii ne nee taxawal nee ñoom dañoo war a yem. ñu gis ñu gis tam ñaari mbër yoo xam ne dañoo daje ci bu nekk bëgg a bëreeg sa morom ñuy tëkkonte. Ah. alkaati itam du la may jàmm. loolu est-ce que baax na ci lamb. def naa ko ci bu njëkk ba man nag la déggee xam nga di baaxu di yëgante policiers yi ñëw ñu naan leen ci kaw. man la ko xam la man ko gars ñun ay mbër lañ. Mhm. xam nga lii dafa bokk ci làmb. ba ba Modou Mbaye doomu Bégaay moo na bokk ci làmb. mooy làmb mais policier da ngay ñëw ne nii ñu ne la yéegal ci kaw. xam la ñu humilier làmb tamit léegi kenn xamul la la quoi. kenn xamul la la yaakaar naa CNG bi tam war nañoo wax ak alkaati yi ndax yaakaar loolu dafa bokk ci làmb am na ñoo xam ne dagg na nañ seen billet dara indiwu leen fa lu dul benn mbaytin bu ñëw ci stade bi mbër gis ko daw tëkkante loolu dafa bokk ci charme làmb day neexal làmb CNG bi nañ xoolaat seen règlement yi ñuy teg ci kaw xale yi nañ xoolaat règlement yi ñuy teg ci kaw mbër yi boo doon yóbbante eh, Xeeru Ngor sa adversaire la nga koy wax seen diggante yéen ñaar xool ko mu ngi lay xool Xeeru Ngor Abdoulaye Oh, dama lay ñaanal jàmm yàlla yàlla may jàmm bala kii dara bañ laa dal nga ñëw en pleine forme nga ñëw si stade bi ñu jëflante ma ak yow. bilaay walaay. ndam nag ñaan di ndam yàlla suñu borom moo ko yor. Uh-huh. maa ñaan yàlla kenn yàlla ma yàlla may ndam sa kaw. amiin waay te bu si incha allah rabi si kàttanu yàlla noonu lay demee. Xeeru Ngor bu jour ba bu dee sa loxo yi nga yaakaar. yow di nga xam ne yow tapet nga amoo fit. tapet nga maa la gën a capable de booy lu leer laa la wax nag. bu yaroo bu yaroo waaw ñu daan ko ndànk. bu yarawul nag ñu buddi ba ci kaw suuf nañ daan defee. Ah. lu leer laa la wax. xam nga xam nga papa yaa da laa jàpp. dóor la ba sa bët bi suulu nga ñëw jébalu man maa raw sama papa yaat maa la gën a sadik foofu. Ah. te bu ba nga xam ne maa la gën a capable lu leer laa lay wax. waaw ah, nga doo dara man dama booy nga bëri la ñuy de. man de man waa waalo li la teg ci combat bi dafa metti dañoo tëjoog yow di entraîné yow lu metti pure dur duñ ma may huit heures laay génn ci géej gi. Hmm? huit heures damay pare Alioune Seye 2 téema di ma sataloo di ma sataloo ba huit heures. Hmm? billaay wa Alioune Seye 2 grand bu ñàkk ñaan. maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm. di bëggee ñoom la déggee numéro 2 Arouna Sall Lirou Diane. wooma wooma ma wax la ni ma la bëggee mbaytin wooma ma wax la ni ma la bëggee dañu la bëgg bëgg dañu la bëgg bëgg bay bëgg dee mbaytin yaa ñu jaarale mbaytin wooma ma wax la ni ma la bëggee mbaytin wooma mbaytin wooma dañu la dañu la bay bëgg a dee mbay teen yaa ñu jaral way wi ziko wooma mbay teen wooma dañu la dañu la bay bëgg a dee mbay teen yaa ñu jaral way wi ndeysaan Badou yaakaar naa ne loolu neex na may li la xale yi wayal daw na yaram lan nga leen di dig la 15 bilaay moo rax moo suma su si biir làmb damay reyante quoi ndax booy dañu sonn trop xoolal li lii yombul quoi war na alxuraanu karim Modou Ngom ñoom Aliou ñoom Cheikh Mbaye sama gars yi ñoom saw Sow barke Serigne Bamba booy nii man ak ñoom dañoo yàgg ça fait longtemps billahi wala nga sama booy nii booy ndaw yi ngay gis sama combat ñoom ñoom ñëpp bëgg a dem stade wóor na maa ngi sant sama booy yëpp ñoom Thiam. ak sama mafia bi ñoom Naay ñoom Cheikh Baye Fall ñoom Amer Mari ñoom Ala. waaw koñ bi yëpp booy yëpp maa ngi sant ñu ngi waajal combat bi. di leen wax ñu waaj rek incha allah ñu dooleel ma. xam man amadul gunaas quoi ak baxlaat te su kàttanu yàlla bu jur ba noonu de maa ngi sant nag ñi may jàppale ah, ci bologu biye yi bay di ba maa ngay woo ci combat maire bu gunaas mu jàpp si combat bi andaw andaw Ndiaye maa ngay woo ci combat di woo Amar Aidara maa ngay woo ci combat bi Sora ale Ala Ndiaye kooku suma waay la suma lépp la maa ngay woo ci combat bi Aziz Ala Ndiaye maa ngay woo ñoom Masata maa ngi woo waa Colobane ñëpp ñu jàppale ma ci combat yi commerçant yi mag yi commerçant yi ndaw yi ñu jàpp ci combat bu baax a baax maa ngi woo waa seen tamit ñu jàpp ci combat bi waa ñàgg nag waa ñàgg pare nañ waa ñàgg pare nañ quoi mobilisation mag la ñuy waajal di wax ne leen incha allahu rabi bu jour ba ndam la ñàgg la jëm maay sant sunu waa écurie ñoom caat bu waalo booy am combat ñëpp yàlla na yàlla defal ndam ñoom ñaa ñaabu ndaw ñoom Maguette Seck ñoom Papa booy Djiné ñoom Macha Perara ñoom ñaabu ndaw Modou saa Jaxaay xam nga booy am combat ay Rekoba sama doomu ndey sama xarit maa ngi koy ñaanal ndam si combat moom bi VIP Rekoba sama lonko la sama lépp la maa ngi koy ñaan ndam lu sedd guy incha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant may sa sant yàlla boutique grand Cheikh Ndiaye maa ngi koy bégee bu baax a baax ñoom Pape Diaw Modou Lama xam nga di sant commerçant yëpp man commerçant ñoo may dooleel boo gisee sa combat may may booy dikkee damay ñëw ñuy xam damay ñëw ñuy jënd billet yëpp moo moo tax chaque booy nii sama lamb dama leen di may ticket mhm. maa ngi ñaan yàlla lamb ji nii xam mu demee noonu ko incha allah rabi ma tax maa lay sant di la gërëm bu baax Naar Fall ku ñàkk ñaan nga waaw borom baax la waaw mbokk yi gis ngeen noonu émission bi gis ngeen ni Mbaye wax digganteem ak ki nga xamante ne mooy xeer Ngor la 15 Modou Baye Fall tëgg ko ñu koy nuyu au passage ñu nit ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di gërëm sama caméraman ba du fay ko siyaar bu baax di ko wax liggéey bu jaare yoon moom la di nuyu sama jigéen pël bu rafet di nuyu nag ki nga xamante ne mooy sëñ Fallou Mara sëñ Fallou Mara borom jàmm gën maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di wax gars yi ah seeti leen ko borom dara la de seeti leen ko ma nga ca jàmm gën na ko gars yi seeti waaw di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di leen joxaat dig daje beneen yoon ci beneen émission ak beneen champion incha allah.